honorable Fatou Ba ñu bàyyi la nga nuyoog internet yu Sene News TV. Euh, jërëjëf maman maa ngi lay nuyu di nuyu internet ñu leen di suivre yéen waa Sene News à travers vos plateformes. waaw monsieur honorable député Fatou Ba de Yewwi Askan plus particulièrement du euh, du parti Pastef alors nak nga jàngatee actualité politique bi li nga xamante mom moy la libération de Ousmane Sonko et de votre candidat Bassirou Diomaye Faye actuellement ñu nekk di ci li nga xamante mom modi moo di mbedd Sénégal yi naka nga jàngatee euh, boobule libération. wa libération bi ñoko ko ci mbégte buñ ko yégué mbégte lañ ci lañ ci am parce que nak euh, mbégte bi tamit gis nga ni ñom ñom ñoo leen état bi moom moo leen tuumaloon dugal leen ñoom ñoo leen sangaat ba ñu set raxas ba ñu set génneewaat leen nee leen euh, defuñu dara kon ñu xamante ne loolu victoire victoire du peuple la victoire sénégalais yëpp la parce que combat bu ñu doon mëne moom la continuer di leen ne ñii ngeen jàpp kat muy Bassirou Diomaye Faye muy président Ousmane Sonko muy patriote yi ngeen jàpp tëj leen si kaso bi ñëpp plus de mille et quelques détenus ñooñu ñëpp kenn defu euh, euh, wax dëgg fa yàlla ak sénégalais yëpp maman alors euh, ñu bari bari japp né libération bobu amna yo xamanteni mu ngi lalu ci bir manam ay négociation yo xamné ne dox na ci digënté Ousmane Sonko ak président Macky Sall ku ci melni actuellement Zainab Sankaré daldi euh, am déception ci yoy les kàddu Ousmane Sonko xam le ni jokkalante na ak président Macky Sall. Ah, négociation xam nga ñu président Ousmane Sonko lu mu yàgg wax nee na moom négocier fekk ñu tégal ko pistolet ci bop yaa ngi dégg. xam nga mm. nit ki mënoo koo jàpp di kii euh, buñ xatal ko pression ba négocier mom mais ñun ñu négociation mais du négociation ak façon mais si loolu président Ousmane Sonko discours mais bu ñu di wax ak lépp lu ñu nañ ko euh, respect mutuel mais lépp ñoom lu ñu tegoon li moom ah, d'accord point ñu tegoon trois points yi ñu jotoon mais si respect ku nekk considération yu nga yu nga dugal moom considération yi ànd na ci moom tamit nag dafa waxoon ci négociation yi lii ak lii ak lii laa teg mais yéen tam li ngeen li ngeen ngeen teg bu nekkee ne nekk nag mun nga demal sa boor waaw mais ñun mosuñu bañ a waxtaan mais duñu nangu tam waxtaan ci biir pression duñu nangu waxtaan tamit nga teg ñu maa xam ci bopp bi duñ loolu moom mu sa bañ alors euh, Zeynab Sankare nag décision bi mu jël euh, gannaaw bi mu euh, dégloo ni Ousmane Sonko waxtaan na ak président Macky Sall mu nangu wala mu bañ condition yi ñu ko tegal lan nga koy wax. ah Zeynab Sankare xam nga moom xalaatam la wax. Mhm. parce que ñun tamit dañuy xa bàyyi xel ñoo xamante ne ñun ñoo ngi tëdd ci kaso yi. Mhm. ñoo ngi tëdd ci kaso yi te condition yi ñu nekkoon métti na jéggi na dayo boo xamante ne ñoom rek même suñu ko expliqué sax da nga sa yaram day daw. donc condition yoy ñu suñu xamee ne kii teg na pour libérer suñu jeune yoy libérer suñu mag yi suñu frère yoy nga xamante ñoo ngi euh, souffrir au niveau des prisons lolu nak mom luñuy saluer la wa lolu mom duñ lu saluer du c'est pas parce que dañuy négocier pour am ben point mais pour ñu génné xalé tamit lolu tamit lu baax la parce que xalé tamit société bi lañ bokk te defuñu dara yéen len leen tuumaloon setal ngeen leen ba ñu set donc xalé yoy tamit dañ leen wara délo ci société 90% pour wala de d'électeur lañ dañoo war a voté ji te seen ak yelleef di ko dañ donc pour changement bu bu am du question euh, non non non non loolu ñun dañ ko mos bañ ay de table mosuñu kaa ay compromis bi mosuñu président Ousmane Sonko euh,

ba moo ngi fi président Bassirou Diomaye Faye donc moom amul dara loo xamante war na kaa mun a wax président Bassirou Diomaye Faye moom kay su amee lu muy wax la Diop boobu na ko wax candidat boobu amee lu muy wax Lat Diop moom na wax ak candidat boobu noonu moom moo gën moom amul dara lu mu ñuy jox ba leçon de morale. alors euh, ñu bari tamit gis na ñu président euh, Ousmane Sonko euh, ni mu daan waxee jëmale ci président Macky Sall actuellement dafa xaw a changé daanaka dafa commencé di teg tànk ki nga xamante ni moom moo di Amadou Ba lan moo waral loolu. waa xam nga moom c'est simple président Macky moom jeexal na moom am moom nekkatu suñu adversaire kii nu mu tuddati Ba moom mooy moom mooy suñu adversaire te moom xam nañ bu baax lu mu lu mu lu nekk ci ginnaawam xam nañ bu baax ñoo koy la alalam boobu fan la ko mën a jëlee en tant que fonctionnaire misi milliards yooyu fan la ko mën a jëlee en tant que réew moo xamante Sénégal ñëpp ñu souffrir loolu war nañ lu jaral leeral la loolu lu ñu jaral leeral donc président que euh, Macky Sall ñun amuñu dara luñ koy wax bu dul di ko nee rek demal seen sa ngelaw te dinañu leeralal miliyaaram yi fan la ko jëlee. jërëjëf merci beaucoup madame la députée. Euh, merci beaucoup maman. maa leen di sant yéen ñëpp waa ngeen jëf.